bokk yëpp siyaar leen ci weeru tedd bi ndokkeel leen ci ni nga ko laaje ñu tontu kem kàttan waaye diggante sëriñ bi ak moom kenn du ko mën ndax moom dafa waxal boppam ne aqsamtu billahi inni linnabi abadan xillun waxibun wa abaahu yabaahu nabiyina almuntaxa xayral wara aradi fi kulli cheyin wa ma yaabahu abahu bañ ne ko ba giñ la def giñ ne yonent bi ab xaritama ab soppeem la te loo lu ci na daraja la xalilullahi ak xabibullahi lu ci na daraje boppam la ndax xalil ak xabib bëgg yàlla bokkut ak yàlla bëgg la bëgg yonent bi it bokkut yonent bi bëgg la moom nag da bëgg mu bëgg moo tax ma dégg mu naan allamani bi annani ahabbu ilayhi min ghayri wa man yuhabbu <laughs> sallallahu alayhi wa sallam nee na ko yaa ma gënal ku dul yow kon nag kooku dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neexut a xam euh, lii ñuy wax nag ñi tax ñu di ko wax mooy ñiñ bokkal pas-pas ak ngëm nga xam ne luy wax ci sëñ bi xam nañ ko gëm nañ ko neex na leen te danañ ko mën a dékku ñeneen ñi nga xam ne ni yàlla def sëñ bi neexu leen taxuñ taxuñ ñuy wax buñ ko weddee amu ci benn jafe-jafe buñ ko gëmut seen bopp lañ koy def suñu yoon newu ci murid yiñ ñu bokkal pasu sëñ bi daal tax ñuy wax loolu nag wuñ ci ndimbal soxlawuñ ci wéttal xam nañ ne sëñ moom tànn na ñi mu war a tànn tànn ñi war a àndal te ba muy tànn booba mooy ba sallallahu alayhi tànnee ba noppi alastu bi rabbikum xalu bale bale ja sallallahu alayhi wax bam noppee da dafa daal di saseñ bi mu wax moom it tontu daal ne bale yént bi tànn aw xeetam ne ahmadu tànnal mu ne ko damay tànn ci sa biir xeet wi sama njaboot du tànnat loolu mooy xayru xayraat ji kulliyati mujizatun taaxarat wa xayru xayraatin ladayka du xirat moo tax jërul propagande jërul campagne jërul sonn kum tànnoon ca boobee da nga ñëw kum tànnuti loo bëgg a bëgg ñëw doo ñëw kon duñ yedd ku ñëwut ki ñë ki ñëwit du sëriñ bi kon nag euh, dañ koy tàmbalee ci xaside gii nga xam ne daf koo def muy siira bu matale bu matale mooy li nit war a xam ci yónnent bi sallallahu alayhi wasallam tam am njëriñ ama nit ki njariñ fi la tàmbalee la nga xam ne nag dafa weesu loolu te yow mii sax ku la ko waxoon sa baay ak sa yaay du la neex loolu sëñ bi yoonam ni wu ci du tudd xam nga fu mu tàmbalee laylatu mawlidin nabi ndax la ca des du lu ñuy roy ndegam du lu ñuy roy bokk ci li ñu laxat laxat kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasana li ñu roy lu yonente mooy fi mu tàmbalee gën a adduna ak fi mu mën a defee dara tàmbali jëf-jëfam yooyu la ñu ak meloom yeeg jikko yi waaye la ko jiitu suñu yoon wuru caane kon nag teg yi ni sëñ bi mayut sëñ bi muy netti la jiitu yonente bi ndegam lépp ma sell la fi mu ñëwee jamono rek la tàmbalee guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam gën adduna nee na moo di sikki sàkk ak werante mooy guddi gi ko dindi mooy gi dunni dindi it coono nee na moo laabal bakkar yëpp guddi googu mooy gi nu jëm nee na it biha najaatu wal falaax maa sururi wan najaax biha rabaahu wassalaax ma an difaayi na xami nee na texe ak mucc ci guddi googu lañ ko amee nee na mbégte ci lañ ko amee nee na tonaw ak yéwénu mbir ci lañ ko amee nee na mucc ci am mbugal it ci lañ ko amee dana xawat xawaariqa badat an ruwaati sabatat ka misli naari nutufi at ma amihay daqami wa ayni saawat allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati usirat kal adami wa kan qidaadi shuhubi tardan li ahli riyabi an samhi axbaari nabi wa rajahu bi nadami mune guddi googu dafa dafa ñëwaale ak ay kiimaan ay mojisaat yu mu wàccaale yoo xam ne bi muy wàcc rek moom la àndaaleel te nee na loolu téere yi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci liñ wax andi nañ ko bindi nañ ko andi ruwaati sabatat benn mooy sawara wa daa tàkk foofu ñëpp daa gis muy tàkk te Moustapha yi guddi gi gane adduna bi mais cëpp rek sawara daa fay ak ay nu saawata nga xam ne dañ ko daan màggal fonk lool keroog la giim ndox ma amatut nee na itam nuurun azimun qad yara bii qusuura xaysara man kaana fi ummil xura makkata xayril xulumi mel ne fii bu doon tey jii fii la yonent bi sansam gën a adduna xëy na ay cinq heures moo war toll jamono yu lënd mi bi ne cëpp rek ba tudd yàlla da àndaale leer goo xam ne ndayam moo ko seere nee na bi mu wàccee rek leer gi mu àndal ñu nekk ndar ñu nekk Casamance ñëpp ngi gisanteeg seen bopp nuurun azimun qad yara bi qusuura qaysara man kaana fi ummil qura makkata xayril xurumi daaru bëccëg iwaanu kisran sadaa fiha wa xablu rufia samkun lahu fartafaa nahu saman mukarimi benn palais boo xam ne dañ ko tabaxoon ba daan ko misaal naan dafa dem ba jege asamaan loolu misaal la naa saman mu kër yi mooy lu kawe loo xam ne gisoo fa mu yem rek dañ la koy misaal dafa kawe kawe ba miir ba gudd gudd ba doo xool ba fa sa bët yem moo tax ba ñu la koy misaal dañaan day mel ni lu jëm asamaan ñu ne miir boobu nag gaarante ga ak rëy ga mës sa fett yëngu waaye bi yënt bi ne cëpp rek dafa baa dafa dafa yëngu dafa yëngu ba fet da ba fett ba jaaxal nit ñi buur bi nga xam ne euh, moo toogoon sax ci lal bi lalam ba dafa yëngu yëngu ba far damm xata sarirun kasara li ajli xewlin hitara min noori afdalil wara neen lal bi buur bi toogoon sax dafa ànd ak tawax bi di yëngu di yëngu bu lal bi ne tàcc rot mu rot fi suuf moom te loolu li ko indi mooy min noori afdalil wara kon nag mu ne mawliduhu muazamu mubarakun muxtaramu tanzimu yan xaatimu ala sabi taqaddumi nee na waxuñu sax di le dafa dagg nag dañ koo sopp dana daa war nee na màggal guddi ki dafa war ndax de guddi guñu war maal guñ barkeel war googu war nag ñim gën a war mooy ñi jiite mbooloo yi ñoo war di ko woote ci anam gañ ko bëgge di yéeni ni ci yonent bi di leen ko jàngal ñu di ca jariñu di ca texe texee moo bi sunnati teg ko ci tànki sunna màggal ga koy màggal nag da koy teg ci tànki sunna boo bëggee mu am njariñ mooy bu góor ak jigéen ñi jaxasoo nañ beru fee góor ñi beru fe jigéen ñi beru fee ñu bañ a gise bañ a jaxasoo bañ faaxu lu génn yonent bi ak yàlla ak alxuraan ak siira ak lu deme ne ñoom nga xam ne ci lay jóge bañ faaxu daray addina lu dul lu jëm ci yonent bi saa sallam ñëpp ko jariñoo ko loolu mooy def ko ci sunna nee na taasimoo bi sunnati nag buñ ko defee noon te teg ko ci tànki sunna yaxuudunaa lil jannati dañuy wombat indi lu àjjana bis diyaadul minnati li muxlisin maasimi ci la ñuy amee ay xéewalit fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda falaa yuxaasabu gada faxtariman wa azimi nee na ko ko mor mal màggal ko ni ko war a màggale defe ko noonu yi ma wax sart yi benn bañ cee des ne la wóorlu bu ëllëgee duñ la laaj dara duñ la isaab duñ la réglé da ngay waaxu rek dem kon nag war maal ko màggal ko faxtariman wa azimi fa man yuazim mawlida xayl baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi xayri waxami ku ko màggale nii ma wax guddik sallallahu alayhi mi gii danga mel ne ku teewe badar ci lu wér ci benn werante ndax badar moomu nag nga xool mooy lan mooy ña nga xam ne bañ ca jógee yàlla day leen lu leen neex defati leen dara dara du ngeen bindale ti bàkkaar garanti boobu la ñu am boo ko màggalee ni ko war a màggalee nag am nga daraja jooju bu ëllëgee fa kullu man anfaqa fii mawlidihi al musharrafi maalan bi ghayri sarafi wala bi qadri dirhami fa innahu ka man xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayr waraam fahimi koo xam ne am nga alal ju lew joo xam ne fu lew nga ko jëlee te wane jubluwoo ci wane jubluwoo ci yàq ndax wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin moo tax mu ne maa leen ba xëy de sarafi fabal alal ji nag joxe ko ngir yàlla te bañ cee wanewu bañ cee njistal def ko ngir yàlla képp donte benn dërëm bi gën tuuti la nee na boo ko defee da nga mel ne ku teewee xunay niin te la muy métti métti xare unay nin boobu nga muñ ko teeween gi badar te jàppale yonent bi dimbale ko boobaa da nga da nga da nga dañ le yëgal ca ñooña daan ne fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuasabu xadaa mi ngi koy mi ngi koy confirmer rek ku ko màggal nii ma wax doo tase mbugal ëllëg fa kullu man qad xadara mawlid afdalil wara muadiman mubashira bi sukkarin aw laxami fa innahu qad dafira bima yudimul bushara wala yulaqi darara yawma ijtimail umami koo xam ne nag togg nga aw ñam wu am ndawal wala nga am naan goo xam ne am na suukar jàpp ci dundal guddi gi rek jox ko ña koy koy jàng ngir jëmmi yàlla képp tax da nga ci am loo xam ne kawe na sa njort ci ay xéewal ta doo tas ak jenn jenn lor bis ba ñu dajale xeet bi ëllëg wa in ala ma il xuri mawlud xayil bachari fasoh bil mutahari yakuf kaydal murham li iblis di bari bari pexe barsan bi ñuy jàng ak xasida yi sëñ bi nett li siira ñu fanaane koo jàng ndox mañ koy tefli ku ca naan yàlla daal la musal ci pexem iblis kon nag ihyaau mawlidil bachir yaxmil ayaala wa duyóor fii shifaun li sudóor li kulli haadin yéen tamit dundal guddi gi nag am na yeneen ngëneel mooy day dalay aar yow mi koy def aar say say say barab aar sa njaboot aar say bagage addukat beeg sàcc ak yàqkat du ci du egsi ci yow loolu bokk na ci ngëneelam te day saafara raggi xol ak raggi yaram kon nag mu dikk ci ni mel xad kaana saa tawassuti fi lqad jaali sututi walam yakun bil mufrati walam yakun bi aadami walam yakun mutahama walam yakun mukalsama bal faaxa kulla man sama min mintin li aadami kaana yatuudu kulla man maasaahu fi kulli saman wa kaana waasi alatan yabxak bi tabasumi ci gàttal daal nee dafa digg doomu njooliwut ba fu bu àndee ci mbooloo ñëpp di ko yoxamti ko gàttu tiit ba kenn ku ne di ko xool ci suuf te mbooloo mu àndal day mel ni moo leen sut te bind ba dafa jekk lenn ëppul morom lépp dafa yem doo xam sax ndax doomu aadama dana mel ni wala déet doo xam foo koy féetale ndax mel war a fet kum dendal rek moo lay ëpp daraja day mel ni moo la sut te kenn du la xoolati nee ku yaatu woon dënn la dënn bu rëy la yoroon te nag bu yoree day muuñ jox xaqataay te nee na melu ko yàlla jox ten ten la boo xam ne diggante weex a xonq la demel lu clair lu lu hmm. ten la boo xam ne doone daa weex tàll ba mu ëpp ndax loolu am na ñu ñu mu defetut ñoom mm-hmm. doone yi daa xonqaay xonqaay yenn naar yi waaye dañoo fab ci diggante bi jox ko jox ko melo woo xam ne moom rek ni mel nga xam ne day mel ne bu doon doomu aadama daal da nga naan lii daal dama dañ ko maquillage defaraat ko ba mel nii waaye nit mënta mel nii <laughs> te bu ñaq way génn day ànd ak lañ ko nañ moom lu nit ñi luñ gën a ñaq di wuti parfait moom nag lu mu gën a ñaq xetu miski di génn ci yaram muy xëy daanaka ku ne di bëgg a jege jëmm ji ndax xet gu neex te nee na bu muuñee nag day mel ne melax gu génn ci digg wax set ni muy mel noonu la ba ñi mel wa daxkuhu yajlu zalaam ka surujin fi zulami day mel ne ab lam boo ko ne tay ci biiru lëndëm nam fay mel noonu ay reem noonu lay mel ci nit ñi nee na kanam wa wajhu mudawwaru wa xamisun assaru wa bayyun asmaru muratilu takallumi ka annama azabi nee na kanam gi daa wëndeelu jekk ba dee ayer nii nu hoo soo bakkan gi daa bi fii gudd so loolu bokk na ci naar yi dañ ko daa taggee ñi ci gën a rafet ci ñoom jéggul jekk rek bakkan bi gàtt da gudd ba fii door du am bakkan nee na ka annama azzab fi xadin muasab daa mel la ndoxum wurus lañ def ci lexam ba ndoxum wurus moo cay xel mati boo koy gis <laughs> nee na nopp yi yor waaye wal wàccu maaxil xuma mi sekkal yàlla wu jekk waag kanam ga rafet gaag nopp yi rëy yaag mat gaag yëpp nag teewul kanam ga moom day fa njàqare nee na ku jàq ba egsi ci penc ma bañ la na xayma bii fi lu yonent bi ne wala tabax bii la ne li nga naan siiwa gis kanam gi rek bu nee tëll nga xool ko rek boo man njàqare cent quatre-vingt-dix-neuf dem na ndax da xam ne sa aajo faju na bu na muñut sax sa aajo faju bu na muñut yoon waxatuñ ko kenn du fa àndaale soxla mu dellu bu dee laaj mu tontu la bu dee euh, ku soxla ñaan mu ñaanal la bu dee kuy laaj alal mu jox la koo tax mu ne wala wëccu maaxil xumami kooku nag wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zaara wal mislu qattu lam yura walam yura fi chimi noonu yi ma wax ni ni ko yàlla bind nag moo tax dafa gën a mat ñëpp ci bind bi waaye yemu ci waaye da leen a gën a mat ñoom ñëpp ci jikko ji moo tax wal mislu xattalam yura yàlla mas sa bind ku mel ne moom wala nu yura fi chii mi te du amaat ci adduna kooku nag ahmaduna moom noonu yàlla baaxe muy sunub yonente ahmaduna rahmatuna wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mooy sunu yërmande xaamiduna bokk na ci awturam da day sant rek waaye niamatuna mooy yërmaande bi eh, xéewalu bindeef yëpp xam naa loolu la sëñ bi doon na ci moom ba tax nga dégg Cheikh sa Cheikh eh, Sidiya Baba di ko wax ne ko acheikhu ahmadu niamatun awlaaha haasi alxalaa'iqa kullaha mawlaaha nee na ko yow seet na set ba xam ne xéewalu jullit ñëpp nga doo kenn bàyyi ka ci des da koo doon ni sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne niamatuna mahmuduna ci ay turam la bokk farxatuna muy mbigum jullit yëpp wal joodu musri diyemi waaye tabam ga dafa gécceel ab taw mu junju melo wi gannaaw bu mu jigee ci mm, melo wi ne ko yàlla bind ta nga xam ne da koo jagoo te kenn fekk ko ci nga xam ne liñ naan ak jagle la exception la ci moom mësuñoo gis mbindeef mu bind mu mel noonu te doo ko gisaat mu indi yi nga xam ne yàlla daf ko koo jox ci ay mojisaat te yonent yi ko jiitu yëpp bu leen doon wàññal ay mojisaat boo ci amee juróom bu fukk jàmbar ga moom nag li mu am ci ay mujisaat yoo xam ne bu ci ne doyoon na ab yonent ëpp na junne la wa min al xawaariqi maa lam yi ji li saabiqi mooy loolu wala yefi li laaxiqi fadlan min al muqaddimi li ko yàlla may ci ay kiimaan ay mujisaat mu wone ko ngir wedem loo ñi koy weddi ñi ko jiitu ñëpp mësuñu ko am te keneen du ko amaat ta loolu nag fadlan min al muqaddimi nga neel la lu ko yàlla jagleel lu jógee suñu borom bokk na ci yooyu mina salaamul xajari alayhi masyu sajari lawoon si xaaxul xamari bisil baqa wal qidami bokk na ci yooyu bare na lool doju newoon màkka bu leen masaa romb dañ koy nuyu ba nit ñi di ko dégg moom ci boppam it seera na ko ne wii de fu ma ko rombe mu nuyu ma am na it bis boo xam ne dafa am ko doon weddi ndax dégg na ab yonent la mu ne ko waxe kese doyu ma da ngay def lu ma jaaxal lu yonent yi daa def ma doon gëm ne ab yonent nga ne ko xanaa bu ma ñod bu waxee garab gi mu wisi ma bu ma wisee nga gëm ne ab yonent la mu ne mu ne garab gi ñëwul wisi ma garab gi jóg ak reen yi ñokket di waaxu ba fekk yonent bi fi mu toog ci wetu waa hmm. waaye garab gi yëmu ci waaye day wax ak yonent bi naan ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah waaj daal tuub dugg ci diina lawoon shaqaaxul xamari bisil baqaa wal xidami moom nga dégg mu naan kaman shaq badrun shahidun sama bil fadli xar gam xaroon weero moom it werante wu ëpp ba tax mu daal xar weer mi ñu defee ne ay pexe laag dañ leen a gëlëmal seen bët lu ñu dugg ci waaye mu mu daji réew mi mépp mépp kuñ laaj rek nga ne nii ngeen ko gisee nii lañ ko gisee ñu door nangu kaana yuzilluhu alqamaam yara wara wa amaam wa inhu kaana tanaam waxal boo lam yenami moom fu masaa toog bu ker gi bu dikkee ba ca catul ker ga nit ña toog ca ker ga ker ga day randu fekki ko fa mu toog moom bu dee dox ci naaj it aw niir day dikk ba tool ak moom di ko niiral ndax bañ jant bi tàngal ko ba loolu ñëpp maase woon nañ xam ko ci moom bu dox it day gis ci gannaaw day gis ci kanam ni doomu aadama yëpp di def nga xam ne fii nga jëm rek ngay gis moom melu ni woon yaraa waraa wa amaam day gis it ci gannaaw wa aynuhu kaanat tanaam wa qalbuhu lam yanami sëriñ bi nee na yonent bi sallallahu bu masaa fàttu ba mel na luy fër bët itam xamal ne bët yaa gëm waaye xol baa ngay gis ma ngay dund ma ngay liggéey la muy liggéey ma ngay gis ca ceew mi laa tajannubu zubaab an gis bihi maa siyaab kasaaka tasiru siyaab billahi moo lil maxnami nee na weñ ak bokki weñ yëpp nag lépp luy tong ci lu am sobe dañoo misaal weñ rek waaye lépp loo xam day am taq-taq loo xam ne mën naa salté nit wala mu yàq kiim yooyu yëpp dañu dañuy moytu yonent bi duñ ko jege duñ jege ay yéeréem weñ du moo xam yim sol la moo xam yim masa sol bu ko masaa sol rek ba bàyyi kum ko joxatee sax weñ du ko laal loo xam ne lu xel nanguwut la lu jafe itam mu yombal ko def ko lu ko yomboon la gàtt boo xam ne masalan du mas a am meew mu jàppat bi rek mu tàmbali am meew te du jeexati xeet yooyu yëpp dañoo dafa yudul jeex mina tawasulu tuyóor bihi lahu staka bahir wan fajaral maa un namir min yedisi takkarumi a njanaaw yi lu mel ni picc yi buñ jaaxlee dikk ci moom ñaan ndimbal masalan tey mu toog ci mu toog ci ak garab moo ñi mu am na picc moo xam ne dafa am ci ñi mu àndal ñu dagg car bi ne euh, tàgg mi rot mu jaaxle ci lool dikk di jàmbat yónent bi loolu yéen tamit am na ku ko tooñ di ci yéen mm, am ku ne man de car bee ma dagg laa defoon moom la kon ndax am na tàgg mu ci ne mu ne ko loolu lay wax del ma delloo ko ca mu dem delloo ko ca picc mi door delluwaat waat mu ne woon nga xam ne picc mi bi mu jaaxle ci yonent bi la ta tawassul ci moom la ko dimbali ma sa gaañ ndax ña ngay gaañ sama doom ja mu wax ñoom ñu delloo ko bii lahu staka ak tool bu mu dugg rek jiléem gi jóg na di di jooy ni nit di jooyee ba yonent bi far kaalaam ñi raay ko mu door a noppi mu moom ne ko lu mu doon mu ne ko dañ may liggéeyloo te duñ ma jox ma lekk duñ ma jox ma naan mu laaj borom wax ko ko mu ne ko noonu la demee de maa ko di jox lekk maa ko du jox mu naan waaye tey lay jeex loolu nag na ci borom mbaam yeeg borom fas yi bàyyi xel xëy na yeneen bi fi néewul rek waaye ñoom it ñu ngi jàmbat rek dañu amut kuñ ko jàmbat kon nag ku fas wala sa mbaam di ko liggéeyloo ngir di ca mën a dund fexeel ba sàmm àq ja dox sa digg ak woo xam ne ku ne war na cee bàyyi xel wan fajaral maa un nabiir min yeddi sit takarumi bari na loolu lum fu mu këdde nii rek amutoon ndox mu ball ndox ma ñëpp di ca naan waaye xare Hudaybiya ci gën a yéeme nga xam ne mbooloo mu dul jeex nañ amatuñ luñ naan ba ñëpp jaaxle mar wi leen bëgg a rey mu toog baaraam yëpp di sotti ndox ñëpp naan ci ba man di duy seen i gutt loolu nag da ko rafaatale sëriñ bi am na ci njaareem bis ñuy nett ñu jàng gis bu ci wetam ba egsi ci bayit wi fi mu toog noonu suñu taxaw daa toogee rek baaraam yi di sotti ndox mel na rubi na ba walangaan fi mu toog ba nit ñi di ci naan mu dooree yëg ni am na mu door leen a ñu dem kon nag foofu laa yem ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu